président Diomaye euh, Faye a Mauritanie. Mhm. Euh, effectivement man loolu dafa nekk lu ñuy rafetlu parce que le pourquoi euh, day nekk rek dans une continuité boo xam ne ku xam Sénégal dernière année yi. Mhm. géopolitique lu mu ci joué. loolu ci am solo. Mhm. xam nga ñu daan nañ ko wax duñu xam dañu xëy rek gis sous-région bi tàkk nañ Sénégal am jàmm. loolu le pays limitrophes am na lu ñu ciy joué loolu nag day fekk am leadership boo war a am ba am ko pour yow nga mën a joué yow sa influence nañ ko bëgg a joué ñëpp xam nañu ne tey soo jëlee exemple le problème de la Casamance suñ ko mënee réglé parce que président Macky Sall influence ba mu amoon ci président ci Gambie ak Maurit ak euh, ak Bissau da ci joué nga jël aussi le problème du pétrole bi nga xam bokk nañ ko ak ma pour aller plus loin exemple de l'écho nga xam ne ñu ngi koy waxtaane ñenn ñi euh, en réalité man yàlla may na ma euh, des fois may voyage pays pays bëri nekk si dans la sous-région am ñu am benn réseau bu ñu tuddee réseau de jeunesse politique en Afrique de l'Ouest mm. man nekkoon coordonnateur bi euh, Afrique de l'Ouest dëkk yu bëri mais fekk naa séminaire yu bëri si yéen dina dëkk yoo xam nekkul sa Sénégal mais boo leen déggee ñuy wax da xam ne euh, leadership bi en Afrique de l'Ouest à un moment donné c'était ñaari personnes loolu nag du ma ne c'est à leur personne mais c'est à a mën a mm-hmm. naan yéen seen président moo bloqué l'écho parce que il attendait l'arrivée du pétrole sénégalais que la balance commerciale du Sénégal soit euh, excédentaire pour ñu ci mën te def te mi loolu noonu dafa nar am exemple suñu yu mel noonu suñu koy def ci wàllu ne man nga dem am yeneen dëkk yoo xamante ne tey exemple tolloowuñu doole le Sénégal war na mën a supporter yeneen dëkk. Mhm. yooyu yëpp da ci am affaire de soldat affaire de mhm. Mhm. moo tax kon loolu noonu géopolitique boobu nga xam ne leadership bi Sénégal amoon war euh, ñu doon a changer discours bu fekkee ci lu baax la moo tax genre émission yi neex ma du nekk émission yoo xamante ay par par loolu lay doon day nekk loo xam ne nit ñi xam-xam lañ ciy waxtaan pour njëriñu réew mi ñu war ko